Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy Sénégal 4 TV forever. waaw man nag sama gars yi man dama gis ne dama gis ne waa dama gis ne Madior man dama gis ne Madior pourtant kiiwul joore pourtant dama gis ne Madior ndeysaan man naa gisuma dafa sàgganee njooy man gisuma loolu peut-être da ko da ko gisul quoi peut-être li mu gisul moo tax mais ma góoma ne mun na bëgg beneen jigéen bu dul joor moom vraiment loolu góoma ko gëm naa ne Madior dafa bëgg joor ba tey am xam nga comme xam nga nit tamit doo gisul da ngay dem ba découragé wu tamit xam nga xam nga rek gisu ko loolu mooy problème bi. salaamaaleykum sama groupe Madior a Dior ci loo nekk siñ bi. yaa ngi ci jaam loolu laa fekk ci bunt bi dama xamul nag tur bi la maa ngi jéggalu waaw dëgg la dama jorob joor bi kii di nekk joor di nekk hôpital boo maaj bu dafa dab moto bi mu ñëwee docteur bi na ko euh, kii nan la mën a nekk sa jabar nekk fi boobu ba léegi te ñëwuloo fi mais docteur bi xamul woon dafa feebar mais maajoor man contre ma ko benn côté parce que dafa stressé wu te bëggul lu yaama joor la bëgg yaa ma affaire mbokk moo ko ci dugal dafa stressé il faut mu am xale bu jigéen bu jigéen ak moom stress bu mën a dañ mais maa mun mën a tëll yem ci joor ñoom ñaa ñu jàkkaarloo lam waxoon fàtte na ko lam waxoon xale bu jigéen bi da koy fàtte day dellu ak joor waaw day de taman li ma yaakaar maa yaayam ak yaayu joor ak seex bi nii ñoo bokk ndey ak baay parce que joor bi mu ñëwee ko ñoom maa euh, la ko yaay pape papa maa na ko yow ak sama jabar benn ngeen tey bi papaam ñu ngi doon yoro photo boobu man li ma kii daal yaama du seex kii daal du seexam euh, kii waay naar du seexam yaay maajoor ak yaay joor ak euh, tante ak yaay may sax ñoom ñett ñoo bokk ndey baay loolu laa xalaat. maa bi da ko doon neexal de bu ko joxoon xaalis comme noonu mu ko tontoo noonu ba sànni ko loxoom dem kon bu ko tontoo noonu waas maa mi koy neexal naan ko maa yowoon nuróole luñ sol. kon kon paa bi bu ko joxoon xaalis du ko xas doom nu ko xasee noonu noonu mu ko sànnee loxo noonu ba dem kon du ko ko def. non boo déggee mu ngi ñoom ñaar dañoo niroo niroo du si dara ya loo gis peer la waaye yaay maajo ak joor xam lan lañ bokk bàjj yaay maajo bàjjan la si joor parce que papay joor la bokkal loolu wax nañ ko ba taw. waaw yaa ngi laajte sama tur man la Kumba léegi lañ may wax. man daal bëgg naa yaayu yaayu ma yaayu Birima Maysa Joor mi mais xale mère bee mère bee classe mère bi moo classe macha allah waa te mère boobu incha allah sa mi ngi dem Grand Yoff dina lijjanti léppam ne kocc ne kororoj. waaw waxati ko sax léegi moom bàjjenu maajoor moom maajoor na ko dóor te loxoom du ko moom am na. xaas bi ñu pasar pasare maajoor nee na ko loolu amatu fi léegi loolu mooy yu bon yi mu daan def yëpp na ko wàññi parce que yooyu yëpp da daan fay ñu koy defar léegi nag su gisatul xaalis nag. ne maajoor tàppetul de gisoo bis bu muy ko jàppoon mu rey ki ko la soxla mun naa bu ñuy daje seen daje nan la métti trop dina ko dóor na xamal moom violé. joor kooku nee naa ñi koy rëbb ñoo sonn maajo moom rek lay rëbb instant yi maajo tàppatul gel bi kii moo ko yónni naar jóob naar jóob moo yónni gel bi ci gel bi maajoor bëgg ko dafa bëgg a merloo yaama ba pare yaama wax ko dëgg gi yëpp wante naar jóob moo yónni gel bi gisoo gel bi bi muy akolaat maajoor ba pare di màttu mu takkal maajoor kii ni rosa ba a ñëw di mer loolu yëpp pour naqari naqarloo ba mu mën a jox ci maajoor xam nga yaay ji moo teg boobu mais xam naa ne ma naar jo bandi la de bandi la wëyu la këccapan la mais gis nga maajoor nii mu koy def nii mun na ko lijjanti bam ni kocc na ko rek te wax du jub na instant bi naar Diop daf leen ñu bëgg a moom luñ ne nii rek moom mu laaj 10 millions te du laaj sax lu ndaw nag 10 millions jëm kaw tamit neexul yow nga ni yow sa mag mi ngi xa alal ju dul jeex rek nga ni alal ji moom day day jeex ah tamit nag moom moomuñu maajoor daal dina ko lijjanti nii maajoor moom man damay kontaan ci maajoor ndax dina ko lijjanti da koy jaay jaay yu bande ba lijjanti lim bëgg a lijjanti day jaay ci kawam jàll cuune lay doon moom andi moom bu dee daaro cuune lay doon naan nandite nandite nandite waaye nandite dus buñ koy daaneel moom tamit cuune lay doon doon la fa demee rek naa daal bàyyi ko foofu man daal joor daal bëgg naa joor bëgg naa tey baas joor tamit robu joor ah dëgg neexut demul sax bay nopp maa joor maa joor demul bay nopp gel bi maa joor ci boppam moo dof déggoo li ma leen wax kii nu mu tuddati naar jóob <laughs> naar jóob fi ne nii moom nee na bandi yi bàyyi leen ma dem ci terrain bi ngeen nekk ci sama ginnaaw naara nekk ci terrain bi instant bi toog leen seetaan leen rek mais moom kon moom mi ngi lor doomam ndax yow bu fekkente ni sa doom mi ngi sëy ci biir kër gi ba pare nga jël beneen jigéen di ko booleeg sa goro tamit ñuy xul gi ndax lan bëgg dërëm dërëm bi kese jaru ko ak naqaraan sa doom ndax lim la fi bàyyi dem ànd ak ñee ah tamit man daal bëgguma lii man daal naar jóob daal a ngi noonu daal waaye lii daal maa jóob moom moo ko war a lijjanti ndax instant bii moo yore kër gi mooy def mooy dindi moom daal moo war a lijjanti këram. jàmm ñu ñooy ma xam kee fu mu féete yaama fu mu ak naar jëf fu mu naar jëf moom dañ ko moom man dañ war a éliminer sax ci film bi nag moom bàndeem boobu di yëngal bagg non maa joon nambal kel bi de moom pour naxaral yaama moo ko ci dugal ndax dégg ko bu naan ki nga xam ne soo ma bëggoon doo ma nëbbu doo nëbbu lépp xam nga looloo tax waaye nekkul ni da ko daa nab gel bi la bu ko def dafay naqaral yaama fiirloo ko pour yaama mën ko wax vérité bi lépp looloo tax mu dugg ci gel bi waaw loolu moom da ko war a def nag ndax dafa jot nag ndax instant bii nii moom sax tamit dafa war a dem xooli seexam ndax gën na gis il faut que tamit mu dem xooli seexam mais paa bi muy àndal wax na ko ko nee na ko grand yof di dëgg te xam naa ne paa bi am na ci renseignement yu wër yoo xam ne nii moom bu yeggee xëy tamit mun na am mu gis tonton libaas ndax moom moo nekk ca kër ga bu ko gisee xëy na moom mën ko wax uh, kuy kuy mariama ak joor ak affaire yooyu li ngay wax dëgg moom mais mère bi moom jot na pour moo xam mbokki joor tamit waaw mais man dama xalaat bu demee Grand Yoff bu gisee tonton libaas ndax moom tontu tontoluwaa dina xam ba xam mère Mariama seex la parce que mu xamu ko woon moo tax gëma daal affaire yi dina feeñee foofu noonu ak mère bi mère mooy xalaat naa secrétaire gan mi bi rek moo xamoon ne moom seex la. waaw man nag sama gars yi man dama gis ne dama gis ne waa dama gis ne maajoor man dama gis ne maajoor pourtant kiiwul joor pourtant dama gis ne maajoor ndeysaan man maa gisuma dafa sàgganee joor man gisuma loolu peut-être da ko da ko gisul quoi peut-être ko gisul moo tax. mais Malior mo goma ne mun na bëgg benen jigen bu dul joor moom vraiment loolu gom ko gëm na ne Malior fa bëgg jor ba tay ci munu am xam am pataana comme xam nga nek tamit doo gisul da ngay dem ba décoration wu tamit nga wóor xam nga rek gisuko quoi loolu moy problème salam alaykum sama groupe ma jor jor ci lo nek siñ bi yaa ngi ci jaam loolu laa fekk ci buntu dama xamul nak tuddu bi la maa ngi jéggal wa deug la dama jorog jor bi ki di nek jor di nek hôpital boo maaj bu dafa dab moto bi mu ñëwee docteur bi na ko euh, kii nan la mën a nekk sa jabar te nekk fi boobu ba léegi te ñëwuloo fi mais docteur bi xamul woon ne dafa feebar mais maajoor man contre ma ko benn côté parce que dafa stressé wu te bëggul lu yaama joor la bëgg yaama affaire mbokk moo ko ci dugal dafa stressé wu il faut mu am xale bu jigéen bu jigéen ak moom stress mën a dañ mais maa jóg mun a tëll yam ci joor ñoom ñaa ngi jàkkaarloo lam waxoon fàtte na ko lam waxoon xale bu jigéen bi da koy fàtte day dellu ak joor waaw day de taman li ma yaakaar maa joor yaayam ak yaayu joor ak seex bi nii ñoo bokk ndey ak baay parce que joor bi mu ñëwee ko ñoom maa joor euh, la ko yaay yow papa maa joor na ko yow ak sama jabar benn ngeen tey bi papam mu ngi doon yoro photo boobu man li ma kii daal yaama du seex kii daal du seexam euh, kii waay naar du seexam yaay maajoor ak yaay joor ak euh, tante ak may sax ñoom ñett ñoo bokk ndey baay loolu laa xalaat. maa bi da ko doon neexal de bu ko joxoon xaalis comme noonu mu ko tontoo noonu ba sànni ko loxoom dem kon bu ko tontoo noonu wancement mi ngi koy neexal naan ko maa yowoon nuróole luñ sol kon paa bi bu ko joxoon xaalis du ko xas doom nu ko xasee noonu noonu mu ko sànnee loxo noonu ba ko ko def Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever